reprogramme li nga xam ne mooy ouverture yi ci université yi université du Sine Saloum ubbiteem dàq nañ ko benn ba ci ñaari yoon ñu ngi jëm ci ñetteel yoon bi li ko waral mooy étudiants yi nga xam ne ñoo fi nekk bañ leen ci li nga xam ne loolu la leen ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàng mi wax mooy dañu am problème boo xam ne état fayu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu lekk bi te université mënoo ko tijji te campus social bi parewul université mënoo ko tijji te campus social bi joxuñu ko matuwaay yi nga xam ne mën nañ ko jox ba ñu mën a jàng ci anam gu gu gu baax. loolu nag bu ñu ci jógee lu toll ni réew lu toll ni réew dem ba ay étudiants jug na dañuy jàngi ñu ne lan moo leen xañ jàng bi ñu ne parce que li ñuy état moo fayul seen restauration loolu yaakaar naa gàcce la ci réew. Mm-hmm. ñu ngi ñaan nag état bi nga xam ne moom moo yor wàllu woowu noonu mu taxaw ci lii nii ci ni mu gën a gaawee. université du Sine Saloum bokk na ci ay problèmes yi nga xam ne ñu ngi koy dund mooy depuis ñu sos université bi en 2013 ñu teg xeer bu njëkk ci université bi ba tey may wax ak yow ni travaux mu mënul pare te bokk nañ ci li nga xam ne ñu dañu koy ñaawlu. bokk na ci li ñuy ñaawlu encore une fois ñu toog nekk ci ay abri yoo xam ne dañu ko abal ay ay ay ay ay yoo xam ko abal te ci jàngukaay yooyu conditions yi nga xam ne dañ ko fa waral defal étudiant yi pour mu jàng conditions yooyu matewul ñu ngi ñaan état mu taxaw ci loolu ci ni mu gën a gaawee. condition yi nga xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax am nañu ci campus de Kaffrine ay étudiants yu war jàng ñu ne électricité amu fa lu mat ñeenti weer électricité amul ci campus de Kaffrine te loolu bokk na ci li ñuy ñaawlu tey bu ñu tijji woon Kaffrine du mën a jàng parce que lan parce que courant amul ci université lu toll ni université ci réew jël ay doomu jàmbur orienté leen ci bërëb ñu war a jàng ñu ne courant moo amul courant courant courant moo amul ci bërëb boobu te foo amul courant kenn mënu faa jàng encore une fois ñu ngi koy xamal indi réew doomu Sénégal ñu ngi xamal doomu Sénégal aussi que administration université bi nañ fexe ñu yokk ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi ñu yokk li nga xam ne moom mooy personnel administratif bi parce que loolu ci ñun lay impacté personnel administration bu motul day impacté ci étudiants yi parce que ñu ñi nga xam ne ñoo am bac ba léegi mënuñoo pare lan ko waral personnel bu doyul lan moo ko waral ay enseignants yu ñu ngi ñaan état du Sénégal mu recruter ay enseignants yoo xam ne dinañ mën a ñëw jàngal ñu ci ay conditions yoo xam ne nii nii normal na. ñu ngi ñaan aussi état du Sénégal mu gëstuwaat université bi parce que université bi état bi moom moo ko tijji mu gëstuwaat université bi ay étudiants ñu ngi fii di tardé ñu ngi tardé te seen ay doom ñoom ñu ngi génn réew mi di jàngi feneen ñun ñi nga xam ne ñu ñoo doomu baadoole ñun ñoo toog ci université bi. ci ay conditions yu ñu ngi fi ci ay conditions yu métti te loolu nag dafa doy dafa doy te dafa doy li nga xam ne lan ñu ñuy tëjee li ñuy tëjee ñoo ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne mooy xew ci université yi Sénégal yi bi plus particulièrement li nga xam ne mooy xew ci université bu Dakar suñu ay rakk ñoo fa nekk suñu ay xarit ñoo fa nekk te ñun en tant que étudiant wu université du Sine Saloum ñu leen di apporter suñu soutien di leen wax carrément xeex bi ñun ne yéen ñun ñoo koy xeexandoo ba mu jeex tàkk parce que ñu ne ay étudiant bu Thiès jafe-jafe yi ñuy dund ñoom la ñuy dund université bu bu bu Bambey jafe-jafe yi ñuy dund ñoom la ñuy dund te yaakaar naa réew buñ ne buñ ne budget réew mi pour cent yi ñu ngi ko alloué à l' éducation war ñu woon a si yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk ngi wàllu njàng mi ci réew mi ñu xoolaat seen ay doxalin ministre de l' supérieur ñu ngi koy woo mu xoolaat wàllu doxalinam ci université yi ñu ngi xoolaat ñu ngi woowaat tamit le président Macky Sall mu bàyyi xel université bu baax a baax tey lii daal université yi nii bu ko daloon moom du yegg si fii nii mm. parce que amul lu ko université yi joxul ci réew mi. bu ñu nee bu ñu nee le président Macky Sall mu ngi génnee UCAD tey bu ñu ko defoon nii nii du yegg si. Ah, kon ñu ngi koy ñaan le monsieur le président nga gëstuwaat université yi. SeneInfo